jërë ngeen jëf ñu door ak observateur mi xëy dikkee ñun ci wàllu politique xam nga parti démocratique Sénégal jamono ji mi ngi ci ay jafe-jafe ne Modou Diagne Fada mi nga xam ne ànd naa ki gaayam ñu génn ne dañoo bëgg ñu defaraat parti bi dañoo bëgg ñu yeesal ko yéen a kaay bi nañu Modou Diagne Fada ak kii di Abdoulaye Wade tey ji dinañu gisee ndax maître Madické Niang ak Tafsir Thioye ñoo yombal gise bi ba tey ji ñoom euh, dinañu gisee gisee boobee nag la ñu yéen bi di observateur nañu lu ne mën na caa xew leneen loolu it obs ne tey ji a kaay bi Euh, alxames bii di ñëw le témoigné moom it xëy ci mbiri parti démocratique Sénégal du ci xët mu njëkk mais ci suuf gi nii Pape boo xoolee lam ci wax moo di tey jii nga xamante ne ji dañ doon amal comité directeur du parti Sénégal di ko wàcc yéenekaay bi nañu parti bi mën na fa doxee baax waaye mën na fi doxee aussi sànku en tout daal lépp PDS tey jii kon ca la koy décider loolee la bi gis direct info dikk ci mbiri PDS ak li nga xam ne ak ñoom mooy gis-gisu euh, direct info defante bi am mm, ci diggante waa kër Macky Sall ak Amath Dansokho mi di wax ne euh, mi mi ngi ci danger yéen kaay bi nee moom Amath Dansokho ñett ñi nga xam ne seen i mbir euh, yëla commencé mu di yaa xam di Youssou Touré di maître Omar Youm li mu ci gis moo di ñoom ñooy ñi gën xam xambu taal bi ñoo wax Amath Dansokho loo xamante ne ji daal fayul coow mais Barthélémy Dias tontul na ko mm, ci yéen kaay bii di laas moom Barthélémy Dias ndax laas yemb na Pape Samba ma ngoog laas yembul Pape dañu koy tëb ndax du ñett lu luñ gisul dem ci euh, grand place mi dikk euh, ci lu aju ci li nga xamante ne ji mooy waa PIT ak ni ñuy jàppale Amath Dansokho yéenekaay bi ne nañu la Dansokho wax ñoom waa PIT wax nañu ko Dansokho nag mooy président d'honneur bu PIT ba noppi sax liñ ci teg mooy Dansokho njëkkewu ko président Macky Sall moo ko njëkk a wax ci conseil interministériel ne Sénégal ndox mi coupé courant bi coupé xel nangu ko loolu jaaduwul kon tey buñ ko jiñee Dansokho dañ koo yab ne njëkkewu ko wax ñu wax euh, ci Walf Fadjri mi di ñun ci lu aju ci allié parti euh, bii di APR ay parti de gauche yu ànd ak moom lu ci mel ne parti socialiste lu ci mel ne lu ci mel ne PIT yéen kaay bi nañu euh, allié yooyee ànd boo xamante ne ji daf leen di déranger maanaam mënuñu ànd ak waa APR dañ koy jëm rek Sud Quotidien dikk ak ñun ci mbiri présidentielle yi 2017 yi ak it a kaay mu xam ne mooy jàmmarloo ak Macky Sall euh, ni ñu ko waxee mooy ba kàddu euh, xalaat boobee jibee am na ñoo xamante ji yëkkati nañ seen kàddu di wane seenu ñàkk ànd ci loolee nañu ànd dali ci euh, le quotidien mi xëy ak ñun ci Moustapha Diop mooy ministre microfinance yéen a kaay bi ne fi nga xamante ne ji mooy fonds de promotion entrepreneuriat féminin yooyu mu jiite daal dañ faa yónni woon benn mission d'audit bu bawoo ci cour des comptes mais bu ñu ba ñu demee ba dëpp du ñu ko nettali euh, kii di magistrat bi di Majib Gueye yéen kaay bi nañu moo ko jiite woon ànd ak yeneen ñetti magistrat ngir ñu dem xool Moustapha Diop nan la yore kër googee may ay saaga la ñu fa jëlee waa ji saaga na leen ba leen di wax sax ne cest ay nit la ñu yu tekkiwul dara ñoom magistrat yi cour des comptes mu ne deful dara ci réew mi cour de règlement de compte la gën a jege pap ñu dem ci observateur tëjee fa yëf yi euh, ak lu xew ca Kolda xam naa ne liir nga ko ndax yow moom Pape Sakhulaye Talla. man ay bëtu garmi laa yor du ma lire n'importe quoi non non lii Tamba la xew. lu fa benn euh, groupe benn clique euh, ay wëyu yoo xam ne dañu dem ci benn euh, bureau poste. liiru ma ko de. waa bëgg koo dajj hmm. mais bi ñu dajjee mënuñoo yóbbu coffre ba. Hmm. seen xol jeex ñu ne duñ duñ ñibbi ci zéro <laughs> nopp gardien bi lañ dagg yóbbu. <laughs>